salli ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam sant nga yokku nga sëñ saal doo tawte kuule nga naam cuut sëriñ bi aar na la jox na la kaala ga sant nga yokku nga nday saal doo tawte kuule nga naam cuut salaamaaleykum amitoon net ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag ñu ngi fii ci cité kër góor gi waaye laataa loolu dañuy sant yàlla jul ci yonent bi sant Serigne Touba suñu yaakaar te ñaan jàmm ci réew mi di ñaanal Serigne Mountakha yàlla guddal fanam te bàyyi ko fi di ñaanal Serigne Saliou parce que fekk naa ko jannatu ci ne la am nga ndam def nga la sa baay ba daan def bi nga tàjjee ndékki ne la am nga ndam ne la bu Serigne Béthio cuun del si waa toon doo defar sa toogaay keroog ba nga génnee bëccëgu jannatu ba ñëpp nawaat nañ sa jëf cuun ñi ngi ñaan nga yàgg fi loolu te wér di ñaan yàlla guddal sa fan te nga ànd kook sa bokk yi ak sa rakk yi ci barke Yonent bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar Cuun maa ngi leen di fay eh, maa ngi sant sëriñ tubaab bu wér wér te di yëkkati kàddu di ñaanal Serigne Mountakha sëriñ Touba mu yàgg fi te wér di ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou sama sëriñ sunu sëriñ mu yàgg fi wér hmm, di bëgg lool nag. ci jàkkaarloo ak àddina di wax ngir bis bii nga xam ne day bis boo xam ni moom mooy sunu bis mm-hmm. li tax ma ni nag mooy sunu bis mooy bisub Serigne Béthio mm-hmm. yi bis bi nag mooy li ko def mooy dajem ba ak sangam ba mm-hmm. yaakaaram ja Serigne Saliou Mbacké dajem boobu bi nga xam ni moo waral tey ñuy ay murit ndax mu amaana bu dajewul woon ak moom mën na noo bañ a doon ay murit sax asanala waaye sëriñ Touba dimbali nañu ba Serigne Saliou fekk si ko ci tool baayam boobee ca taset eh, ànd ak moom def nu ay murit def ñu ay cantaakoon moo moo waral at mu jot ci bi mu fii ne bu bis bi masaana des ay weer ci la ko daan waajal di ci wax di ci dox di ci jëf saa su ne muy fàttali bis bi di fàttali dajeem boobu ak sangam ba bis boobu nag a ñëwaat moo waral nu am mbégte lool. waaye ci ñu bëgg a xam ci lu gàtt diggante Serigne Béthio ak Serigne Saliou seen daje ba. waaw seen daje ba day moom waxaloon na ko boppam daje ba day eh, sëriñ bi ci boppam moo yëkkati kàddu leeral ko. leeral ko it ci kanamu sëriñ Saliou muy taset la amee woon ci toolu baayam ci dëkk bu ñuy wax kër Cheikh Madiou eh, fa la daje woon ak moom foofee la ko Serigne Saliou fekk ca tool baayam ba jël si ko def ci moom la mu def ci moom waaw. mu mel ni bis boobu lu mu am ci yoonu murid bis boobu ak ko may. ah waaw bis boobu lu mu am bis boobu ak ko may ah loolu day moom defe naa. wax ko sax moom day mel nii waaye yow xam nga ni loolu sëñ Béthio lu mu am bis booboo ko may sëriñ Saliou woo ko defal lépp moo ko may lépp defal ko lépp ba mu rogalaat ba tey jii ma mën a toog fii ngeen ñëw ci man dama laaj lu jëm ci loolu ñu gis ni Serigne Béthio fenkoon na bis bu fonk goo xam ne bu mësaan a dikk wax nga ko da koy waajal ci nu ne ci waatu xeetu bernde ci xeetu bégle ci xeetu jàppale doomu aadama yi ren mu dikk nag tombeek balaa wàcc ci réew mi ba ñu nangu benn yëngu-yëngu ban message ngay lancé ci loolu. waaw moom day day xanaa nangu nag dogal li suñu borom moom lu mu dogal danga nga cay bég sant nañ ci bég nañ ci tey ñaan lii mu mel nii mbas mu wàcc ci réew mi ba tax nanu waroon a amale suñu bis boobu mënuñ ko ne amale sant nañ ci ñaan nag suñu borom waay fal ko te muccal ñu ci muccal ci mu jullit euh, defal ñu ci tawféex may ñu ñu fekke déwén te déwén daqal nu ren ba bu déwénee nu man koo defee nin ko bëgg a defee ndax ren naroon nañ koo waajal naroon nañ koo def jëfe jëfee nu woo xam ni réew mi dinañ xam ni sëñ Béthio demul fenn mi ngi fi waaw Cheikh Béthio demul fenn mi ngi fi cuun boo ko waxee dinañ ko gëm ndax fekk na la jannatu bi nga daqee nag yi keroog dama ne cuun def nga la sa jur wa daan def amati nga ndam Omaro ne ma dana am ndam ma ne ko amati na ndam ndax ku gis baas bi nga teg ci ci ci pencu jannatu mi ak nag yi nga dàq ak géléem yi ma ne ko baax am na solo lool waaye dem te bàyyi ku baax lu am solo la ndax boo demee bàyyi ku baax loo rafet la mu ñagal nga ko cuun sa jur wa dem na ci saayir waaye tubaarkàlla bàyyi na ku baax léegi ci wàllu waajal bi tayal bi xam na ne dajaloo amul taalibe yi nun ko dundee ak nun tàmmee woon daje bis boobu waaw niñ koy defee ren wax naa ko ci sama génn yu mujj mooy danu tënku ci ndigalul sëriñ tubaa sëriñ taxa dégg nañ lim ci wax xanaa war ngaa xam ni kasu rajab ji jàll na fi daaru musti jàll na fi xew-xew yu mag yooyu nga xam ni amu ci benn xew-xew bu ko ëpp solo jaar na fi te euh, euh, sëriñ Mountakha joxe ca ndigalam lu tedd lam ca joxe ca ndigal loolee la ñuy fas ñu dëxuñu mooy kenn ku ne defe ko fa fasuñ ci yéenee def lu mooy loolu la sëriñ tubaa digle rek ci la ñuy def waaw ngay xalifa sëriñ Béthio di kilifa ci ñi ngi ñàgg nga yàgg fi loolu téyér waaye ban message ngay lancé ci jeunesse bi ak taalibe yi comportement comportement war a yoraat ñu ñu am ak taalube ak taalube nit moom ab murit bu ak taalube dañee ci yow mën a seen laa bañatee tuddee am murit moo tax nanu sàkku jiwaat ak taalube nanuy jëfe ndigal bu sëriñ tubaa yëkkatee kàddoom nga xam ni ab murit nga danga ko war a jëfe boo ko jëfewul yow man ngaa bañ a tudde sa bopp ab murit ñun nag sëñ tubaa dimbali nañu ba génneen nañu ca loola nun sunu bàyyi dimbali nañu ba suñu sëriñ ba dimbali nañu ba jàngal nañu ak lu di ak taalu lan mooy ak murit loola moom mucc nañ ca sëriñ bi dimbali na nu ba ci ak taalu bi la day tënku xamuñu leneen lu dul loolu njaboot gi loolu la leen sëriñ bi jàngal keneen ku def leneen yaa ko def ci sa responsabilité bopp waaye sëriñ bi moom ci ak taalu bi rek la woote woon ci ak murit rek la woote woon te ci loolu ñun ñii nga xam ni ñun la ñoo ko fi ñoo ko fi nekkal ñun ñi ci loolu la ñu kon nag ñu ngi santaat sëriñ tubaab bu baax. sa diggante ak sëriñ sëriñ Cheikh taaw sëriñ Saliou. saa sunu sang bu tëdd ba waaw sëriñ Cheikh. sëñ Cheikh mooy sunub sëriñ waaw ba ñu ba ñu demee eh, jëbbal ko sunu bopp tey eh, fas yéene tënku ci ay ndi ay ndigalam te lu muy tere duñ ñu ca waaw loolu loolu moom ñëpp xam nañ ko mooy sunub sëriñ waaw. Seydina Thioune ñu ngi lay siyaar baax dem mbégte dalal la fii di la bàyyi nga nuyoo siyaar nañ la bu baax nag. ak saa ñu ngi leen di siyaare asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokk taalibe yi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci jumtukaay yi Dakar Buzz ak ñeneen ñi ngeen àndal ñëpp di leen jox seen wàccuwaay te bëgg lool ci daje bi. Seydina 17 avril bu jub see yëg-yëg bi lan lay nekk ba pare. ah yëg-yëg bi mooy gore ngir euh, day bis boo xam ni bu amul woon lu bari dunu ko xam kon bis bi bu ñëwee lii njëkk a ñëw ci suñu xel mooy gore gore nag euh, nit ki koy def mooy ki dul fàtte te ki tax ñu am loolu mooy sëñ Béthio moom ñun yëf yi duñu ci dara moom lépp moo ko def ñun dañoo ñëw rek fekk barigo ne ci mbartal ñu teg ci suñu loxo waaye dañoo ñëw fekk lépp mu defar ko ba mu baax daje boobu mu dajeeg Serigne Saliou nag waaw xam naa ni moo moo moo moo waral tey lii am tey ba tax na bis bi bu ñëwee gore rek lañ ci mën a def waaw. ngeen tàmm ko màggal ci ci dajaloo ci bernde ci bégle li sëñ bi bëgg ren loolu amut loolu loolu. waaw euh, xam nga sëñ Béthio xëy na ñu bari dañ ko umpale mooy cant gi nga xamante ni moom la yàgg def dem ba ñu tuddee ñu cantaakku ñi cantaakoon mooy kur sax ci sant yàlla sant yàlla nag dafa am lu ko sëriñ Saliou wax ne ko xeeti jàmm yàlla yëpp ak cant ci féete kaw ndax nee bis dafa jot mu dem siyaare ji ko daaray got nee na bi mu ko siyaare see ànd njaboot gi togg ay bernde àndak njaboot gi xale yu ndaw yeeg jigéen ñi ñëpp ñëw riir wut ko nee na boobu jamono ju tàng la nee bi mu yegsee gaa ñi yenu bool yi ñi yenu keesu fruit yi keesu naan yi ñëpp dem wuti ko bi ñuy jaar ci tàng ci ci tàngoor wi mu mel ni sëriñ bi daal sëriñ Saliou ci boppam dafa soppeeku nee bi mu ñëwee mu ne ko ana li nga def loo ci jublu mu ne ko sant si la Mbàkke mu ne ko nanga xam ne bis ni tey yàlla bëgg na yonent bi bëgg na sëriñ tubaab bëgg na sëñ Béthio ne nag loolu ma def ba yàlla bëgg yonent bi bëgg sëriñ tubaab bëgg dootuma ko bàyyi kon cant gi day mel ni lii ñu jàpp ne mooy cant gi ak lii cant gi dëgg-dëgg du benn waaw ndax jàpp naa ni li ñu yaakaar mooy ni dañoo war a daje nekk mbooloo nit ñi di gis nombre bi loolu day wane jëfi Serigne Saliou ci Serigne Béthio waaye dëgg-dëgg cant gi man jàpp naa ne laajul daje waaw ndax jàpp naa ne ku ci ne ci ci ku ci nekk ci ñun Serigne bi defal na la loo xam ni war ngaa mën a toog. boo nekkoon ci kaaf sax di ko fa sant waaw ndax li mu digle ci cant gi mooy bernde te bernde fu waaye ne mën na ko faa defee ci subaak léegi maa ko koy wax sëriñ bi sama téléphone bi bu ma leen ci waroon ay vidéo mbokki taalibe yi nekk bitim réew nga xam ni malgré ni yëf yi demee foofu ca France ca États-Unis ca Espagne ca itali nga xam ni mayu leen sax ñuy wër ndeysaan di génn waaye ñu ngay góorgóorlu di fexe di def ay pexe di dugg di dugg di dem ci barab ya di rey seeni nag xar di rey seeni nag di bernde te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu sëñ Béthio jàngal kon jàpp naa ni ci kuy nekk cantaakoon authentique nekk li nga xam ni mooy dëgg-dëgg cantaakoon li nga xamante ni Cheikh Béthio moom la jàngale ah jàpp ma ni temps dina la tënk ak espace amul dañoo war a dajeeg ñu ñàkk daje ñun ñu dajeeg ñu ñàkk daje dañuy sant waaw waaye dafa baax ci mbirum nit mu mel dañuy gis ñu woote ko ci dëkkam ba ñu ñëw gis ne kat mbooloo mi daje nañ ñu sant waaye na nga xam ni loolu nga xamante ni moo doon am ca dëkk ba ku ci ne yaa ngi toog sa kër di ko fa defee te jàpp naa ni loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom la bëggoon wasaare mu yërmande Serigne Saliou mooy tey ku nekk France di nga yëg ne 17 avril am na ku nekk gin gi neew di nga ko yëg ku nekk cité kër góor gi yëg ko ku nekk feneen ak feneen yëg ko te moom bokkoon na ci li nga xam ni loolu la doon véhiculer di ko jàngale kon mu ñu dajeeg ñu ñàkk daje ñun moom defal nañu dawaamu sukri mooy cant gu sax cant gu dootul dakk kon ñu dajeeg ñu ñàkk daje man jàpp naa ni amul solo waaye nii mu demee it dañoo neex ngir sëriñ bi wax na ko nee na ay ndig ay murit lañu te murit ndigal waaw ñun dañoo fasta yéene doon leneen lu dul ay murit leneen loo gis ak lu mu mën a doon ñun ay murit rek la ñu bëgg a doon sàkku ñoo doon lenn bugg ñoo doon lenn dañoo bëgg doon ay jaami sëriñ Tuubaa jaami sëriñ Saliou te ñun fas yéene ñoo sakku di dugg ci lenn lu bokkul ak ndigal ba tax ni ko sëriñ bi waxee mooy sëriñ Cheikh Saliou mi nga xam ne moo fi sëriñ Saliou te nangu noppalu sunu wajur waa nu ko jàngal nee na ku nangu noppalu sëriñ mooy sëriñ Cheikh mooy sunu sëriñ waaw ñun ci loolu rek lañu ne. lu munu digal danañ ca ne lu munu tere ñu ngi ñaan yàlla ñu bañ caa ne sax ba ba ba waaw ba ba mel ne dañu ciy fekk waaw sunu xol daal wax dëgg yàlla foofu la ne waaw ba tax na bëgg nañu. te ndokkale mbokki cantaakoon yëpp nag waaw ndax day bis boo xam ni ci cantaakoon bu xam dëgg-dëgg luy cantaakoon day bis bu mag ci yow ndax budul woon ak daje bi sëriñ Saliou ak Cheikh Béthio jàpp naa ni tey doo ma dékk sax micro bi kon waxtu wi maa nga ca leneen waaw kon doo kon bis bi ci kuy cantaakoon day bis bu rëy ci yow ba tax na ñu ngi ci ndokkale cantaakoon yëpp di ci ndokkale jullit yi ndax sëñ Béthio kat li jiitu cantaakoon gi jullit la di ab murit dem nag ba yegg doon ab cantaakoon ah, loolu nag mayu sëriñ bi la kon ñu ngi ci ndokkale mbokki jullit yëpp fas yéene koo defee ni ñu ko bëggee ku ci ne defee ko ci sa kër waaw di ñaan sëriñ Tubaa fexe ñaanal may ñu ñu teewee ko ay at yu bari waaw te bu yegg si rek neex te bu yegg si nag dàq bi waaw ah, barkeb sëriñ Saliou waaw ah, kay. ci nga def ñaan <laughs> barkeb Serigne Saliou ñaan ci barkeb Serigne Saliou ñu teewe ko nag ni déwén barkeb Serigne Saliou yàlla fi balaa bi jóg ay ñaan nañ ci mucc sunu njaboot mucc ci ci barkeb Serigne Saliou.